kàddu yi kàddu jàmm la rek Omar di la nuyu soo gisee ma taamu ñëw fi yaa ma njëkk dëkk micro boobu xaw ma lan mooy micro <laughs> boobu ca APR ba la yàgg na 2014 nga dëkk ma micro kon su ma demit di def lu may def damay ñëwaat fii ndax yàlla bëgg na ko am wëllëre te ngay nit ku baax nag wax dara man njëkk ñépp xam nañ ma man APR dama leen doon défendre ci lu bari problème bu am maa doon dox ànd ak samay nit ñu dox ci jàmm leer na ñëpp problème bu fi mun a am ñun ñoo doon dem régler ko histoire bu fi am man maa ànd ak ñoom ñu dem régler ko sama mouvement religieux mouvement bi nag yàlla def na fu ne la nekk ci biir région bi dugg nañu Dakar yëpp defoon nañ ko am na fu ñu nekk ci ay gox xëy na dajul fépp mais dañoo dem ba ci biir ñu xam ne APR man yàgg naa lay avertir leer na ñëpp nanguñ maa déglu léegi nag du biyee mak du kenn ku ñu toppatoo. du kenn kuñ ci jox oto man am na oto jox nañ ma oto ndax ki ma jox oto du politicien ñëpp xam nañ ko ki ma jox oto xam nga ko suñ ma joxoon oto sax tey jii ñu ne ma oto bii dañ ko jox mu maa ma jox ko grand sérigne billaahi maa ma jox ko ngañ maa ma jox ko daam sax ak maa ñeneen maa seet fi ñu gars yi nekk mbuur maa sali ma jox leen ko mais moom Mor Gueye jox na ma oto kon am na am ñun amu nañu nañ ne ndax moo sañ ñu may biyee maka biyee màkka yi dañ ko doon dégg rek place it suñu benn njaboot buñ ci jël maa kenn ci ñun kuñ jël def ko chargé de mission amu fi te depuis affaire soso ñoo ngi woon ci biir parti bi di leen jàppale. pourtant wax ñu ay recrutement yu bëri am na waa Thiès yi nga xam ne joxoon nañ leen ndomba tànk ñu jël ay nit ñu bëree bari kon seen njaboot bokkuñ ci. kenn man de kenn jël sama njaboot. may ko liggéey te soo dajalee muumaat ba mu daj amu ci kenn ku ci jël doomam mu liggéey lu dul man te kenn ko def muy Ablaye Dieye nañ waxante dëgg ah ma su ñuy def léegi nag damaa wax ak ñëpp. waaye 2012 ba 2024 ngeen di jàppale APR ngeen ci benn poste boobu ngeen di wax. benn poste lañ may te sama jabar lañ ko may ñi fi newoon jàll ay directeur amul kenn ku ci may eh, am nañ ay ndaw mais mën suñ nekkee mag maa ñoom gañ ak ñeneen ñoom grand ay booy lañu. mënoon lañ leen def jël leen def leen ay chargé de mission ay daam saako mais man Ablaye Dieye moo ci jël sama doom yóbbu ko mu liggéey. mais yéen tamit euh, religieux buñ koy wax li ba dañ naan di am ay gàmmu di am ay màggal di am ay cant di am ay bis yoo xam ne da koy woote mais xanaa ñoom daa daawuñu leen jàppale ñi nga xam ne. Ah. Macky Sall daan na leen tabb di leen jox ay ndomba tànk. Omar indi nga wax bu rëy man sama gàmm sama gàmmu man dama lay leeral ku mel ni Mor da ci téye dugal ci loxom ku mel ni Waly fay Sali da ci dugal loxom Abdoulaye Dieye daana jàpp mais loolu relation ak docteur Pape Amadou Ndiaye grand série chaque année mu def euh, burdu mais du gis nitu état daam saaxoo ngi ne ñoom ñëpp dañuy def ak feneen ak i mbuur ñun dañuy dem am nañu ay kii Omar loolu la yàlla dogal léegi nag dañu tàggu bàyyi nañu affaire génn nañu demuñu fenn nag ñoo ngi toog di xaar kenn it woowuñu kenn yit jënduñu ndax wax day leer ndax booy wax dañuy defee ne ñii nii ñu wax kenn ñu nekk ci de réew mi ak ñiy wut ak ñi amul ak yàlla na yàlla dafa jàmm mais ñun daal bàyyi nañu. man ak ñu ma àndal kon soppi tur bi mouvement religieux pour l'émergence da ngeen di soppi bi. waaw bu ko waree soppi dañ ko soppi mais ñun daal bàyyi nañu ndax mën nañ suñ loxo ca kaw ci li ma la wax amul benn nit état bu ñu mës a séddale maa jàpp lañ ci dara ñun lépp dañ doon romb bee màkk yi lu muy bari bari dañu romb dem bàyyi nañu te dëkk bi nag Omar dañ ko war a xoolaat ay politiciens nekk fii di rey ni ñi di di nax nit ñi loolu mu ta rek mais sur le fond muy sa benn xarit Boubacar li muy jën ay suukar yu jabel mu leen di may quoi dinañ jàppale des fois Boubacar li yàlla moo tax may wax de ak yonent bi man dama lay wax yàlla moo tax may wax mais ku nekk ci nitu état ñëw jàppale ñu amu fi dañ waxante dëgg ñun ñu fi newoon ñu ne yéen a jiite APR nekk ci kaw men mennum ñii lañ ci doon gis docteur Pape amoon Ndiaye daañ ko gis ab laay Dieye suñu nit la kiñ ñu doon jàppale ñëw recevoir ñu waxtaan ak ñun it muy Mamadou Massaly gis nga day lu mu am jox ñu jàppale ñu ci loolu dañoo taxaw di ko xas di jël yu ñaaw di ko dugal ci ay réseaux sociaux te loolu ñaaw na gor kenn du ko weer. gor kenn du ko weer Omar APR comme bàyyi wu ñu yi ñuy def wallahi jàmm am gor kenn du ko weer di génne loo xam ne kenn bëggul ku la weer keroog li ñu def foofu teguñu ko ana ana ñu mu doon dimbali ana social Thiès tey Thiès sëngeem na ngir jàkk social amul kenn ku fi nekk xam ne tey yaa ngi ci état yaa ngi jàppale Thiès. kon tabaski bi daal moom da ngeen tabaski bi dara dara dara ñi doon ñëw nag ñëw nañu te yàlla tax waaw ñi doon ñëw da ñëw nañ ci yàlla tax Mor ñëw na te yàlla tax suñu nit la quoi kooku nitu daara la soxna Ayda Diallo ñëw na jàpp ci Ayda Diallo Saliou Ayda Diallo Cheikh Béthio waaw ñëw na ndax demoo ñi déedéet mas ta teggi loxom xam nga booy def te yàlla tax ak kuy def te yàlla taxul ak kiy def xam ne lii moo tax mais ban nee naa la social sëngéem na ci réew mi. mais na ñu bëri nee na parce que da ngeen a euh, voté non ñi ñi ñoo soxla woon changement ñëpp a daanu ñëpp a daanu senegal amul ku la mën a taxaw yëkkati loxoom ne maa am dam loolu bu leen tax a ñépp ñëpp a daanu ñun daal. arrêté nañu bàyyi nañu APR di xaar yàlla ak bi di xaar nag lu gën ci réew mi dégg nga di xaar lu gën ci réew mi kenn woowuñu nag kenn taxul ñu def ko ñoo toog daal xalaat non ñun ñun ñun moom wow ñoo ngi leen di ñaanal li ñu dox yàlla leen ci yàlla may ñu réussir ci réew mi naat ma mujjee teg sama wax man APR leer na ñëpp leer na ñoom bàcc leer na ñoom Ibou Diouf leer na ñëpp jeunes yi kees yëpp dañ doon doon pas dem ku mel ni yow jafe Omar daan organise ay Amadou Samba kan Lonase ñëw. lépp lépp fees fa dellu. loolu moo ñoom Mamadou Ning waa Habib Niang Omar Dem ah religieux yi daan non est-ce que ñu déggoolu ma la ñun man day tike sama jigéen la du politique ñu boole li ñu boole moo ngi sosoo ci kër Thierno Abuja. Amadou Samba kan. Amadou sama doom sama sama doom bàjjan la suñu ñaari maam bokk ndee loolu dara. man sama benn gàmm bu bu daaw jéeg la président yow yónnee ci lim ci yónnee te yàlla ak docteur Ndiaye tax te demoon nañ kees di ko jéem a yàq mais bu fekk Mor Gueye waale gars yi si ñi nga xam ne politique yu ñu defar nañ ko bu yàgg non non moom ponkalumu Seydina Mohamed la ponkal Seydina Mohamed dafa am waaw dafa am xoolal ren tabaski bi du mu métti métti moom rek ngay gis muy daw di jàpp ñëpp na mënul euh, daan moo dëkk affaire yi jàpp ci toujours sama jarbaat grand sëriñ day wax di leen avertir ci réseaux di wax mais duñu dégg. mais man ah, Mor Gueye sopp Seydina Mohamed ah Mor laa wax ak benn xale boo xam ne ñu koy wax Moussa Moussa Sarr te dëkk kër Serif Lo dégg nga Thiel Thion xale boobu. am naa ci moom yaakaar nit ku baax la xale yi social mais social am na ñi nga xam ne dafa metti bu amatuñ luñ social te nañu toog am yërmande ci nit ñi social amul tuufi nañ waxante dëgg metti na Omar. yàlla mais waaw social dafa dee mais nag élection ngi ñëw yàggatul Omar xam nga ni ñi dañ dem woteel wax nga bañ woteel la mais ak après dañu soxlawaat te assemblée bi nañ ko réglé coow la assemblée bi bari na nañu dem réglé ko mu tegu ci yoon nañu jël assemblée bi réglé ko ñi fi nekk yor réew mi yàlla leen yàlla jàppale man de lu ma lay yéene ci lu bon yàlla naa ci jiitu mais ñi ñu fal nañu yërëm askan wi très important. très bien merci beaucoup. nañu yërëm askan mais ñun arrêté nañu.